samay 5 millions mbaay laa nga delloo ma kër goo xam ne jëndaguma ku nekk di wax ay maamam kër gi sama tur ci ma ci papier yi la nekk ku nekk di wax ku ne di wax coow di ma topp man dama ma kër goo xam ne day bari coow. Eva kontaan ma ci yow démb li nga def de li nga def dara neexuma ci boo xoolee ne boobu ba léegi maa ngi ci kër gi di sëy ak moom te aw maa njaboot maa ngi muñ. dem naa dem naa dem naa tuubaatul dem na keur laman dem na keur tiaf dem na njefun dem na njaaroy dem na mbar dem na cilla ba mbampana dem na fa romb naa dem na ba mbaaba garas munuma wer weral fu la neex li am solo moy dama def non 10 millions ngay ma lañ wax wax nañ ko ba pare mais tas yaakaar ak ñëw di ni wa koñ wa koñ neena naa leen ni yeguma leen lijjantiwuma leen man sama bop la gem ma am suma keur wax nañ ba mu de yow la doon xaar pour nga ñew suma sañon nak ah bañ may mur indi ma fi lañ ma wax rek lay appliquer ñew sey ba sey ba defi waye nak dafa fekk ni man daam lu ne ci man te dama koy soxla. may wax da nga wéré di. yoruma de dina ma jaxal ndax yow yaangi ni ñum dara jogut ci yow. yaangi ni ñum ñu maaral. wa wa wa wa yow yow kon ban problème nga am nak yow ba may wax jagaté ban jagaté ah, ñepp ñëpp waxoon nañ ma ko ma dëgër boobu kat juróomi million jox lako pour nga jaay ma kër mais yow jàpp ne samay 5 millions mbaay duma bouger mettre fi mètre fii te joxoo samay juróomi millions. deug la xalé nga xale bu tuuti nga li nga wax ni dama ci d'accord ak yow bu baax a baax waaye muñal gëna lu muñ sax laay wax sama jabar ju ndaw ji daal ma ko takkee ba léegi hmm. seku duggul kaaf kaaw téef nga ni inna lazina amanu demal wol ko yaakar wol ñi ngay wax ñëpp ñu ñëw police ak fu rassemblement nañu ñëw bu ñu ñëwee duñ fi jëlee dañ fi tegaat 10 millions mais duñ fi génnee 10 millions 5 millions demal fu la neex am na lu xew daal. ah dinaa ko xew dinaa ko xew. waaw waaw kat yaa jël sa bopp exposé sa bopp. jigéen ñi di la cappe cure daa naan mu ngi nii la beau garçon le plus beau des beaux. tey Abdoulaye daal tey wax man sa yaay laa sa xarit laa du man de. xam naa Pape yàlla dama yàlla dimbali waaye Pape ma amee woon cardiaque rey ma bu yàgg ndax Pape doo wax ma ne ma ne Pape boo ma xam ndax lu xew lan la. am na lu ko Siré daal laa xalaat ko yaay Siré. yow xoolal damay fobeere ah. jël kotal def ci madaar fobeere waaw Pape Thioune yëpp nga ma de. yow yëpp nga ma torop nag